fii nag bu ñu mënee ràññee tey nag politique ak budget moom defe naa ne dama ci kontaan ndax ñi fiy ñëw di wax yépp defe naa ne budget bi taxu leen a jóg ñi fi ñëw di wax fii bu leen budget bi taxoon a jóg du nu wër ci ministère yi di wër budget boo xamante ne yow bëggoo koo voté suñ na waaw nga a déet te ngay wër ci ministère yi yi direction yi pour wut ay marché contradiction am na budget boo ko bëggul doo ci wuti marché nañu may voilà donc di la gërëm di la sant di la gërëm di la sant <laughs> di la wax ne doléance département Pikine monsieur le ministre des finances junj doy na baram xel Kiko ko moom xam nañ ko donc monsieur le ministre ñu ngi lay ñaan nga jàppale en tout cas daal mbaxana moom chaque jour mu ngi koy sol mom. donc monsieur le ministre ñu ngi lay ñaan nga japp mbaxana lay sol ak ñatte abdu donc monsieur le ministre ñu ngi lay ñaan nga jappalé ministre de la jeunesse ndax tay ñepp defe naa képp ku fi jël cadeau waxna na ci li nga xamné moy cdfc waxna foyer des jeunes yi nga xamné tay mo nekk ci Sénégal te ñu war koo réfectionné war koo defaraat ba mu baax war kaa équipé waat ndax tey département bu nekk rek defe naa ne doléance boobu am na rawatina nag département Pikine SEDEPS bi yàqu na bëgg nañ nga defaraat ko ba mu baax bëgg nañ nga équipeel ñu bu Malika case foyer yi bëgg nañ nga defaraal ñu ko madame la ministre bu baax loolu nag ma defe naa ne xaalis moo koy def kon ñu bàyyi xel ci yow madame la ministre monsieur le ministre des finances

ndax tey bëgg na képp koo xam ne jeune nga nekk Sénégal nga am métier su ko defee emploi du la mën a jafe defe naa ne loolu euh, bu amee euh, danañ la wara a encourager danañ la wara a jàppale wax ministre mu gën a yokk sa budget parce que li lay xaar ci jeunes yi jeunesse su Sénégal dafa bari.